Ministre, chers collaborateurs des ministres, vous avez mon bonjour. Et mes remerciements, je salue la presse ici présente. Monsieur le Président, aujourd'hui j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir à l'Assemblée nationale quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont travaillé, œuvré matin, nuit, jour et soir pour me faire arriver ici en 2017. Euh, je veux nommer mon fils Mohamedou Amin Sar, qui est venu de l'Italie. Yaya, je te présente ton frère, il est là, au balcon. Ah def ci li mu mën yëpp kooku borom assemblée nationale monsieur le président je te présente ton neveu ah collègue député yi maa ngi leen di nuyu di ñëw ci lu am solo ko Kérok. 9 milliards plus 7 milliards égale 17 milliards Monsieur le ministre de la Justice, 16 16 milliards Bataille, monsieur le ministre de la Justice je vous avais dit que je peux argumenter mon vote damay voter pour la suppression appelez ça comme vous voulez hein. élimination suppression tous les voix mènent à Rome monsieur le ministre je viens du département de Pékin là où la construction d'une division, division, des investigations criminelles est, nécessaire. Une grande police. Je rends hommage à mon fils Aziz Dabala, décédé récemment des situations très critiques et très nébuleuses. Pour l'insécurité qui règne dans le département de Pékin, que bi, bi, bi milliards, tabac. Monsieur le ministre, j'argumente mon vote. La construction d'une caserne de sapeurs-pompiers est très nécessaire dans le département de Pékin. et c'est une exigence populaire des Pékinois. te ce ci xaalis bi génnee parce que Pékin manque d'infrastructures criard là. monsieur le monsieur le ministre man nag ma ñëw wax la ne la magistrat Ben tribunal bi ñu je félicite le le le le magistrat qui est sorti et invite l'autre au travail mais le tribunal bi mu tribunal qui jël terre ba tribunal ba géejawaay préfecture ba sapeur pompier ba géejawaay ñun Pikine 15 milliards 16 milliards nous, ñun ñoko soxla dama koy voté la suppression dama koy voter bam ndax sept ans def nationale je n'ai jamais voté le budget du Conseil des collectivités territoriales ni celui du 16 dama koy argumenter dama ni monsieur le monsieur le ministre li war moy li war li warul warul dañu koy nooyal bam noy na noy ba melni ni ñu waxtane ko ñun ñi ñëpp am nañ lu ñu bëgg waaye li ñu gën bëgg moy comme li ñuy wax rek waxtane ko ñu koy waxtane li tax ñu koy waxtane moy ñu war leena a ñom ñi ñu fal à 54 de la des voix de la population ñu doxal li nak c'est une demande sociale nécessaire évident Sénégal yep, la suppression est évident kon nous nañu len top, ci sen bëgg-bëgg te bañ top top, suñu bakkan parce que top suñu bakkan nag mënul passe, taxaw fi, di def ay blocage yu sew sewaan moi je pense que mes collègues députés sont très républicains très républicains te lini, nii le ci du ñu ko bañ te danañ ko nangu boo gisee saisi ni mu yaraaxee sax nga xam ne am na ci yoo xamante ni par force dañuy wote maa ngi leen di gërëm di leen sant monsieur le ministre je vous remercie.